war parents yi téye sen domi parce que yeen xam ngeen ne à chaque fois sa sa yu élection joté ni yu melni day xew téye leen seen doom yi lu ngeen mën def len ko ci parce que ni ngeen def ba yar. nañ téye sen domi yi xalé day ñëwaat fi bala élection nañ téye xale nañ wala ñu woo mo jox len secret. wa ilaha illallah. xale yu réer ñëwaat na lamine oh dikat na xalé ñun ndaw ñi à partir de 12 ans jëm souf jigéen ñi à partir de 16 ans jëm kaw. fii ba 2024 nañ moytu ku ci am sa doom teel teel gisaat na ay doom ay xale yu réer yu bare bare bare Lamine xale buy xale buy réer waaw xale moom dina réer ci période yii uh-huh. période yii di siiwaat ah, ñaari xale yi ma leen tegal ci kaw ñoo réeroon depuis presque cinq jour a ngi nii ñu leen di wër fii ci kër Mbaye Fall finalement gis nañ leen mais bi ñu leen di gis dañ leen trouver ci ay condition yu louche yu doy waar parce que ñoom ñaar ñëpp ci benn oto lañ leen fekk ñu tëj leen ci biir oto bi baas oto bi ba nii may waxeeg ak yéen kenn ki dafa mujjee génn àdduna kenn ki moom lañ transporté d'urgence à l'hôpital mu nekk si diggante dund ak dee mu xewee fii nii ci kër Mbay faal ñaari xale yi nag ñoom ñaari ñëpp ñu ngi tudd Ibrahima bu ñu leen di xayma ci âge ñu ngi am entre quatre ans et quatre ans et demi malgré ne coow li am na depuis le jeudi seen disparition mais man démb laa si door a jot même malgré ne Kër Mbay Fall laa dëkk comme ñoom. seen nijaay laa doon waxtaanal démb mu expliqué ma ni ay jarbaatam dañoo réer ba ma ne ko jox ma seen photo sax. ma su ma suba inshallah moy ci tay ji ma def ci vidéo lancer avis de recherche malheureusement ma xey ñu annoncer ma nouvelle ni gis nañ leen mais kenn ki ci gëna nek xalé dafa mujjé génn aduna li tax nak mané leen affaire yi dafa xaw a dama leen expliquer en détail légui yeen ngeen wax ma ci seen xalaat ci commentaire parce que seen nijaay bobu ma leen waxoon en début de vidéo mom mo doon wër bobu ba léegi di wër xalé bi ànd ak beneen xaritam. légui si lañuy ñuy romb ndax lépp ci même localité bi la si lañuy ñuy romb ba romb benn auto bo xamné dañ ko baase léegi nag xaritam bi àndoon ak nijaay ji dégg benn xale buy jooy mu ne nijaay ji loolu ma dégg de dafa mel ni ay xale la nijaay ji ne ko noo est-ce que du ay bëy mu ne ko déedéet lii xale la léegi si lañ jegee oto bi gën a dégg biir wi ñu fexe yëkkati baasu oto bi dajji maal bi ubbi si la am benn xet bu leen dugg seen xel gën a teey léegi xaritu nijaay ji daal di jël birig toj pare bi si la yëndoo si la def découverte bi gis ne keneen ki malheureusement gaañu na ba commencé woon décomposé wu keneen ki mu ngi tëdd mën nañ ni ñu ko fekkee daal mënuma ko sax expliquer tellement que sama yaram day daw sonn na trop trop trop. léegi nag man avant may def vidéo bi jot naa wax ak nijaayam boobu noonu ak xaritam bi nga xamante ne ñoom ñoo def découverte bi ci liñ ma expliquer oto biñ ko fekk benn soi-disant mara bu dëkk foofu seen koñ parce que man yàgg naa dégg turam mais yàlla daa def foofu du sama fréquentation mosuma koo teg bët oto biñ ko fekk maaraa boobu noonu moo ko moom. te li gën a doy waar mooy xale yi bi ñu réeree seen yaay yi wër ba désespéré ba xamatuñ fuñ jëm dem nañ ci soi-disant mara boobu ne na leen listaxaaral xale yi ci lan lañ nekk ba mu ne leen dem leen indi yére xale yi ñu doon sol bu boobaa dinaa am lu ma ci def moom mara bi bi nga xamante ne ci ci otoom la ñu fekk xale yi mu am lu mu leen defal ñu dem si lañ xëy tay jii nii gis xale yi gis ko ci biir otoom gars yi te man li tax ma ne leen affaire bi dafa luus ndax maa ngi gis am ñoo xamante ne ñu ngi naan ay xale yi dañ faa dugg tëj seen bopp mënatuñoo génn man loolu mënuma koo dégg gars yi parce que ay xale yu ndaw mënuñoo ubbi oto boo xamante ne dañ ko tëj à clé parce que maa ngi leen di expliquer tout à l'heure bi ñu leen di génnee dañoo mujjee toj pare-brise bi kon xam ngeen ne oto boobu caabi rek moo ko tëj hmm? dañ leen a tëj ba pare muur leen baas te baas bi ñu leen muuree dañoo jël baas yi takk ko ci pono bi mais loolu xale yi nan lañ mën a dugalee seen bopp foofu ba pare daal di takk baas bi ci ginnaaw loolu dafa dafa louche léegi nag man mënuma taxaw ne leen borom oto bi moom moo fa dugal xale yi wala ku ko jege moo ko fa dugal wala nii wala laa parce que affaire yi dafa nekk ci enquête instant yi police mu ngi def enquête am bu amee lépp leneen luñ ci wax man dinaa leen ko wax ngeen xam instant yi li ma leen wax fii nii yëpp ñaar yi nga xamante ne ñoom ñoo def découverte bi ñoo ma ko expliqué ndax yàlla dafa def ni samay grand lañ samay poros ñu dëkk fi pendant des années kon lépp loo xamante ne yëgaat naa ko si dinaa leen ko expliqué ba pare ma bëgg yéen tamit ak li ma leen jot expliqué ku ci def sa analyse nga wax ma sa avis ci commentaire yi fi may tëjee nag mooy parents yi parents yi téye leen seen doom yi parents yi téye leen seen doom yi xam ngeen ne lii dafa metti tellement que lii bi ma ko yëgee tey sama journée dafa yàqu ndax man xam naa li ci doom ni mu neexee ngay wër sa doom amoo foo ko gisul lu dul ci ay oto ah ñu tëj ko fa te nga xam ne yow nit moo ko def ah, loolu dafa doy waar parents yi téye leen seen doom yi parce que yéen xam ngeen ne à chaque fois saa saa yu élection jotee nii yu mel ni day xew tée leen seen doom yi lépp lu ngeen mën def leen ko ci parce que ni ngeen def ba yar seen doom ba mu màgg ngeen sonn ci bu leen nangu ñu leen koy jëlal ci lu yombee nii